su ma ko déggee dina ma jaaxal ndax Thiès moom defe naa ni euh, suñu waxee ci suñu coalition nga xam ne tey président de la république euh, Macky Sall ak président Idrissa Seck ñoo joxante loxo liggéey pour le Sénégal defe naa ni ci suñu coalition moom defe naa ni laam-laame amu fa ndax loo xam ni loo xam ni ñëpp d'accord nañ ci donc dañ koy sant suñu borom rek mais loolu aussi ñoom it muy président de la république ak président Idrissa Seck dama leen di sant di leen gërëm ci yaakaar bi ñu am ci ma donc ba proposé ma may ñaan suñu borom mu defal ñu ci sutura mais c'est l'occasion pour moi de tàllal nous ndax ñun su aussi bien nous sommes que que coalition nous sommes nous ñun bien nous sommes nañu solidarité moo nous dox suñu diggante dara que nous mais également suñu bir parti Nous euh, euh, président de la république le président de la République ci nous mais les pneus, nous cest

parce que la ville de Thiès est une ville euh, qui, à mon avis, politiquement, qui est une ville du président Idrissa Seck. commencé en général donc euh, mairie, nous dañuy euh, défendre donc pour que nous défendions ce bilan mais j'ai vu des maires amuñu bilan buñ défendre dañuy attaquer candidat yi wara exi donc kon ñom tiit gi seen côté la nek, donc ba tax na ñun dañuy dérouler rek li nga xamni moy suñu programme ak suñu vision bi nga xamni dañ ko hérité ci président Idriss Seck té tay ñukoy doxal également euh, am chance di doxal vision président de la République ñaari vision yi fu ñu daje def naa ci kanam rek la mën jëm